problème Ousmane Sonko dama ko mettitlu mettitlu bu baax sincèrement fortement il mène un combat politique ngir sàmm wut prêt défendre yelleefam ak i àqam forme de lutte boobu la jël c'est son choix c'est sa décision ñun ñëpp dañ koy comprendre nangul ko ko mais damay woote rek état bi ak moom ak classe politique parce que euh, loolu moo war pour que ñu bañ egg ci yenn yi parce que am na foo xam ni yàlla tere yàlla tere kenn ñaanu ko waruñu fa egg donc ñu ngi koy massaw encouragé muy xeex mais ni muy xeexee nag c'est son choix ñun mun ñu ci daal